màgg waaye li muy dajale ci mbooloo itam euh, kenn mënu koo natt euh, tey ji màggalu Touba daje ak euh, sëriñ Mountakha Mbacké nekk ci xilaafa gi muy nag xew-xew bu am solo waaye cosaan li itam jar naa dellusiwaat ngir ñay dem am lu nu yóbbaale waaye itam gën a fàttaliku la leen fa yóbbu ngir waxtaane màggalu Touba nag ak lépp lu ci aju waaye itam borom màggal gi di Cheikh Ahmadou Bamba dañuy dalal tey ak mbégte mu rëy Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane ku ko xam xam xam ko ci yoonu murit muy conférencier euh, bu kenn dootul présenté euh, sëriñ bi ñu ngi lay ziar am mbégte dalalaat la ci euh, démb ak tey ci réew mi FM nga ne ca Touba tey ñu war a waxtaanee màggal geek li ma fi junjoo bismillah salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la bu baax a baax di la ñaanal jàmm tamit di ko sàkku ci yow di ñaan suñu borom mu xoola ñu defal jàmm mm-hmm. di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo yokk mu yokk leen yokk baale rajo réew mi waaw ñu ngi ñaan sama borom mu yokk mboolem euh, képp koo xam na da nekk ci réew mi mm-hmm. waxtaale tamit bi nga xamante ne mooy réew mi ba mu àgg foo xamante ne bii fépp fu rajo di rek mu àgg fa mm-hmm. di am kontaante ak mbégte nag bu baax a baax a baax a baax ci jataay bi ak euh, waxtaan wi soxna si mm-hmm. jërëjëf daal jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha Ndiaye Thiargane euh, ñu xam la yitam lool ci yoonu murid macha allah euh, tey euh, bu nu la ne woon nga dellusiwaatal ñu ci cosaanal màggal gi lan nga nuy wax. waaw cosaanal màggal gi de buñ ci dellusee dañuy wax ne am na ay yëf yoo xamante ne bii ci ay nit la ko yàlla jaarale am ci yoo xamante ne bii nag borom moo ko tàkk woon. am ci yoo xamante ne bii nag suñu boroom ci jëmmi boppam moom la neex ba def ko nii eh, bu dee ci moom li ñu rek. bi dee taxu ko baax noonu. waa xaaral seen ma. waaw waaw dégg dégg nu la bu baax. <laughs> waaw bu fekkente ne bi seet nañu màggal gi ak li nga xamante ne bi moom moo ko moo ko waral am war a war goo xamante bi war a waru zahir la mooy loo xam ni yàlla dafa ko jaay ay ay bindee ko yàlla jaarale li yàlla jaarale ci moom boo ko xoolee day mel ni ñoo am ne dañoo ñëwoon rek pour mel ni ku bëgg a euh, man suufal lii euh, woote bi nga xamante ne bii moom la Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul ci ci euh, ak kone nga xam ne nii ko la fëyee daal di jokkoo ak nasaraan bi ca Mbàkke Baari mu mel ni moom lim ciy waxal boppam rek ñaare mooy dafa mel ni maanaam ay sabab am na ci yoo xam ne yàlla daf koo jaarale ci nit waaye nag da gis ne day waxal boppam ne sama sababu génn gi sababu raybatiya an na laaxa an araada an anaala min tijaah wa an askil saafian li xaw mi xaadiman fi daw mi suñu borom ci génne gii nga xamante ngi ma koy génne suñu borom ci namm ma gën a yokk ay daraja ak ay maqaama suñu borom ci gën a noon nam itam ma gën a yokk ay daara hmm. ba mën a ràmm waaw ak ma ràmm ñi nga xamante ne bii ñooy sama askan waaye tamit ma mën a liggéeyal kii nga xam ne mooy sama sang sallallahu alayhi wa sallam ci lu sax loolu nag kon da ngay gis ne meneen mbir la moo xamante ne bii wuute na ak euh, mbir mi nga xamante ne bii moo jaar ci doomu aadama yi ñu di ko ñu di ko ñu ba tax ci di ko génn hmm. psychiatre tam da ngay gis ne moom euh, euh, euh, bi projet bi maam Moussa Sakh ma wax la waral ko nga xam ne Cheikh Bamba ba moo di junni ak ñett téeméeri at yu teg ak ñett liñ jilee wóor ci at liggéey waaw kon loolu moo dëkkoo ak 1995 ci samedi la jëkk génn ci këram pour war a ak ki nga xamante ne bii moom mooy nasaraan bi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko génne mhm. waaw Cheikh Amadou Bamba kon bu ñu la déggee moom Euh, merewul tubaab yi ndax dafa jàpp ni ci ñoom la yàlla jaarale xëy na lii mu am tey ak euh, loola nga xam ni mënees na koo jàppee natt bu ko suñ borom doon natt ngir xam fu mu toll waaye itam am lu mu ko may ba mu mën koo liggéeyal euh, borom bi subhaanahu wa taala waaye liggéeyal ko itam sangam bi sallallahu alayhi wa sallam foofa ban dégg-dégg la ci murit bi war a am. waaw dégg-dégg bi nga xamante ne bii moom la ci murit bi war a am dafa mel ni kilifa moom saa ko tuumaalee. maanaam uh, wàcc nga aw yoon wàcc nga yi tamit uh, lu yàlla santaane te nii ma la waxee dafa mel ni ay tuuma moom moo ci dal merikam mën na caa juddoo ci nitu kese bu doon nitu kese wala kuy nitu kese mer mën na caa tukkee hmm. ndax uh, bi muy dem bay jéggale ci ngay xam ne kon dafa mel ni mer mën naa am hmm. ndax dafa wax ne afawtu anil ahdaa yi turan li wacc ci man kon bu fekkente ne bii man wax naa ne baal naa ñëpp ñi nga xamante ne bii maanaam ay noonu lañ ci man parce la wax mboole seen nag mbooleem ñi ma noonu ñëpp mhm. kon dafa mel ni kon sax pour ci génne ne nasaraan bi mhm. lay wax nag sax kon bu boobaa daana utiliser baat nasaraan mhm. waaye daal képp koo xamante ne bii noonu nga ma man Ahmadou Bamba jéggal naa la jéggal naa la ci li nga xamante ne bii moom nga def kon xam na bu sa leneen day def seen digganteeg seen borom la waaye kon sëriñ bi moom dafa mel ni moom teeloon naa teeloon naa jéggale hmm. tegaat na te leneen tamit ñaanal na leen ñaanal naa leen mboolem ñi yàlla bind waaw waaw ñaanal leen sa borom defal leen yërmande euh, defal leen ni tamit euh, xéewal kon xañ na ba ca toppaati tam mooy moom xamal des ci seeni loxo du ci mujj dana dem dana ñëw ba amoon na loola ay firnde ci hmm. diggam ak Ahmed Ndiaye Nafi bi nga xamante ne bii moo nekkan ndax te doon borom xam-xam la hmm. moom la wax donte kon nag euh, yëruñu ak xolam waaye kon ay mbindam tey hmm. ñoo fi nekk di ko di ko di ko di ko di ko layal di ko seede ma waaw mbindee fi ne tey di di seede la woon démba ak yëg-yëg ba mu ca amoon euh, ndax mën nga ñoo dellusiwaatal itam ci keroog demam ga ak xëy na ndénkaane yi mu fi bàyyi ak njaboot geeg euh, taalibe yi waaw bi muy dem moom mi ngi mel ni rek foo xamante ne bii dañ laa dañ laa santan na la liggéeyal dara ci lislaam sa loxol bopp ak sa jëmmi bopp ak sa xelum bopp mu mel ni dafa am loo xamante bii dafa taxaw ne doo ko fi defee benn mooy am nañu pas-pas génn la dëkk bi waaye dafa mel ni keroog lu mu wax rek daal di ne euh, rakkam ju baax je di maam Thierno Ibrahim euh, gone yaa ngoog ak diine ji ak lislaam ji lu mu wax rek daal di tudd diine ji ak lislaam ji waaye tam bu nee gis gone yi ne leen dénk naa leen maanaam seen bàyyi Thierno waaw maa ngi leen di bàyyi ci loxol yàlla ak yonent bi waaye ma leen di dénk seen Baye Thierno na gës Baye Thierno ne ko nañuy lekk du naan tey jàng te yar leen bañ mën a taxawu lislaam na nga fexe ba ñu jàng alquran ba mokkal ko na fexe itam ba nga yar leen yaru diine waaye itam na yee leen ba ñu yeewu ba seexlu lépp yoo xamante ne bi safaan la bu ñu doon ñuy naxaate yeewu ba pare di naxaate loolu la doon bañ hmm. mu ne leen mu ne ko kon Thierno kii di Muudu Moustapha ak Mouhamadul Fadal Cheikh Mouhamadul Amin nanga leen jàngal te yar leen te yee leen moo tax Cheikh Abdoul Ahad daana wax ne ku jàngal day maanaam sant nañ ko ndax te yee nanu bañ na jar ñu jàngal nu dañ na ar ñu yar ñu dañ na nër hmm. loolu tam liggéey man ba pare mu jékkatiwaat yoonu tegaat ko ci loxoom daal di dem eh, dellusiwaat wéyalaat liggéey bi wéyalaat boo xamante ne bii fii ñu toll nii seen de juróom-ñaari at yi génn bi dafa mel ni sax du feeñ juróom-ñaari at yi mu génnoon dafa mel ni feeñut sax ci aw doxaliinam hmm. wala feeñut sax ci routine saayam. dafa hmm. mel ni ñàkkul sax ci génn gi nga xamante ne bii moom la génnoon. Hmm. pour dem liggéey li boroomam. ci e, nga xamante ne moom moom mooy génn googu muy exil bi comme ni nga xamante ne bii ngeen ko yomb di wax lañ koy waxee mm-hmm. uh-huh. uh, ndax itam mën nañoo ñëw ci na mu nekkee woon ca bërëb ba nu ko yóbbu woon muy Gabon mbir yu doy waar itam xew fa am na yoo xam ni ay mbind nettali na ko uh, bonu ci mënee dikkaatal uh, ñu mën a xam itam li sëriñ ba daj ba nu ko yóbboo waaye itam taxawu bi ko borom bi subhaanahu wa taala taxawu ndax feeñ na fa lool waaw waaw waaw waaw euh, li ko tàmbalee fii nga xam ne fi la jot a amante ak ñoom contact ci euh, métit ak ci muy jéewal euh, ak itam maanaam seen première escale muy fi ñu jëkk a taxaw war a ci ay fas war a war ci li nga xamante ne bii moom mooy taxaar moom itam foofu di war a tolloo ak bii dëkk nga xamante ne bi moom moom moom mooy mooy euh, jeewal diggante jeewal ak euh, Louga Louga yi tamit boo ko xoolee moom moom ba ngay dégg mu naa foofee la jullee salaatul asri inda safinati bi xayri asri kon foofa day dal di dëppoo ak liñ ne xaraki yow ma sab ci kaamina asar la fitnatul kon dimanche bi nag ci la ñu jóge fii nga xamante ne bii moom moom mooy jeewal daal di war a bopp bëccëg bi nag euh, dem ci Louga pour war a jël Louga saxaar war dem Ndar luñ demee Ndar itam gis nga def nañ ko fanweeri fan yu teg def nañ ko ñeent fukki fan yu teg muy weer ak ak ay fan hmm. foofa tam ay xew yu bari am na fa seen diggante ak tubaab bi ci hmm. ay waxtante ak ay signé ay ay ay ay ay ay contrat ay wax hmm. ak maanaam euh, dem kër euh, Serigne Mohamed Khoureychi loolu lépp di ko dëggalal ne hmm. maanaam sunu borom mi nga xamante ni bii moom lay liggéeyal maanaam euh, sant na ko ngir mu liggéeyal ko ba nga xamante ni bii loola xew ndar hmm. te ni nga xam ne ni la ñu jóge ndar ci gàttal ñëw itam ndakaaru ñu jugaat itam saxaar suñu hmm. ndakaaru ginnaaw boo xamante ne bii toll na ci le 19 septembre ba ñi nga xamante ne bii ñu la fi jógee ci yooru yooru euh, euh, vingt et un septembre war a nag euh, dugg ci lii nga xamante ne moom moom mooy géej gi ci bis bi ñu fi jógee tamit ci bis boobu ci la ko yàlla nattoo waxtu julli yi ko jëkk a jot ni jullee ko ci géej gi noonu tamit la jàll dëkk bi mu jëkk a wàccaat moom mooy Conakry ci ni nga xamante ne bii ni la ni la dund waaye dañ daal bi dem daw na fenn fu ci nekk nag xew-xew ba fa nekk am fa moom itam noonu la demee jaar na benn petit port bu tudd bi maanaam euh, de jóge foofu tamit daal di dem fi nga xam ne ni moom moom mooy euh, Gabon Gabon nag diggante Gabon dëkk ya fa nekk wala ca région ya muy Lambaréné ak Mayomba foofa nag mooy fi nga xamante ni bii xew-xew yi ngay laaj foofa nag fa xewee nga xamante ne bii euh, lu baree bare bari ci liñ gën a bëgg a laaj. Mm. ci ak yaatal barab yooyu nga xamante ne bii sax na fa ñaari at yàlla ak ay weer. Mm. ci génn kon daanaka li ëpp ci yoonu géej gi euh, foofu dëkk yooyu ma la wax mooy poste bii tudd Ngole nga xamante ne bii nekkan na fa ab diir moom itam nekk fa ak suñu suñuy wax Sidi Mabo. Mm-hmm. waaye tamit maa yomba ndax am na benn sénégalais doomu sénégalais. di doomu buur boo xamante ne bii fekk na ko fa ba ab jëflante am ca hmm. kon da gis ni sëñ bi nag kon diggante boobu mboolem li nga ne bëgg a laaj ci exil bi hmm. li ci après foofu la ndax yenn ba dëkk yi jaar rek la fa def hmm. jàll yenn yi mu yend ko fanaan fa daal di jàll waaye feena moom ñaari yoon la fa ñëw te ba mu fa ñëw itam xew-xew yu baree bari ci yi nga bëgg a laaj foofu la amee woon yan lan la dund ci ñaari dëkk yooyu nga lim waaw ñaari dëkk yooyu day wax nañ ne nit ñi ay sahéliens lañu. Hmm. muy foo xam ne ni day naaj naaj yu bare bare bari di ngelaw hmm. mbuuya aussi am lépp humidité bi nga xamante ni bii moom moo am ci dëkk booba hmm. ak taw ba fa am euh, naqari naa dunde benn mooy insectes ya nga xamante ni bii nekk na foofu ñaareel ba itam mooy aadaay nit yooyu sax ak suñu aada yi bokkul ñaareel ba yi tamit mooy foofa àll na enclavé na itam boolewuñ ko ak kenn koo xamante ni bii maanaam ku koy euh, toppatoo la ci wàllu dundam mm. koy toppatoo ci wàllu ñamam mm. koy toppatoo ci wàll lenn loolu moom duñ gis fenn ci gëstu ñu ne boole woon nañ ko ak koo xamante ni bii moom moo ko doon jëfal yi nga xamante ne bii moom la bëgg ngir ay matuwaayam mu gën a mën a euh, mu gën a mën a jàpp waaye daal dañoo gis na daal dëkk boobu moom benn mooy sax wax nañ ne ñooñu ci seen aada sax maanaam gis fa jullit euh, gënati naa jafe rawatina ci jamono jooju mm-hmm. bi ci topp itam mooy insectes yi nga xamante ne bii nekk na foofu tamit euh, fii ñu toll nii rek ku ñu màtt da ngay am jafe-jafe ndax li d'infecté yi di bari bari bari bari mhm. ak pompe yi ak ak ak ak ak produit chimique yi mhm. teewut tey jii am na ci yoo xamante ni bii fu ñu màtt ci jamono jii da nelaw ba ni ngay faatoo mhm. moom nag ñu dugal ko ci barab bu mel noonu dugal ko ci àll bu mel noonu bàyyi ko ci taw boo xamante ni bii wax nañ ne nangami junni milimètre ci am ndox wàcc na ci wàcc na ci lii nga xamante ne bii moom moom mooy sa kawam façon inceste yu bare bare tamit màtt na ko façon nit bu nekk itam agresseur sax fekk na ko fa mu nekk won ko ne ko xanaa xamoon ne man mii maay ki nga xamante ne bii man la sama maam daan faagaagal wépp wàlli wu fi ñëw loola suñ bi yëkkatiwul dara di wax ak moom da koo joxar bi rek mm. wax lam koy wax kooko dafa appelé ba nga xamante ne bii la fa xew kenn mënu nekk nettali. Hmm. ñaareel ba itam yóbbu nañ ko ci doju wiir wiir lañ ko bëggan tamit xañ na jom mi itam benn euh, ndox ment euh, daje ak moom euh, gaañ ko. Hmm. boole nañ ko ci dëkk boobu tamit bi nga xamante ne bii moom lay waxal boppam naa waxabali mun a mun a waxa mun a mun a waxabali salaasa waxa waxabali mun a sunu boroom. may na ma ci bisub talaata waaw waxabalil waxaabi fi sulaasa maa yujilul asrata wa salaasa sunu borom day ca bisub talaata boobee boole na ma ak fukki nit ak ñett waaye mujj na defal ma ca loo xamante ne bii maanaam gàcceel na leen ñoom waaw mooy ñooñu nga xamante ni bii ñoom ñoo àndan ak benn officier bi ak fukki tirailleur ak euh, ak ak ñaar mm-hmm. ñu wax leen fiir leen ci jëmmi sëñ bi te bu kenn ku nekk bu kenn ku eh, bokk ak moroomam fa muy jam na kenn ku nekk taamu benn cër wax ne foofu yi laa ko bëgg a jam waaye loolu da gis ne ku aman mën naa bañ a dellu ci waat ci ci réew mi waaye moom moo bindal boppam ne suñu borom may na ko ca bis booba loo xamante ne bii gàcceel na fukki nit ak ñett ñoo ñu nga xamante bii moom lañ ko booleel mm-hmm. kon da gis ne léeg-léeg nit wax ne sëriñ bi du du nit sax dinañu ko wax. Hmm. ndax lan mooy que ci état bu senegal bi fépp fuñ masana jaarale wàlliw hmm. mu faatu laata muy génn senegal jaar nañ ko. Hmm. Sénégal nag mosuñu fee taal benn wàlliw waaye tamit foofu ci Gabon am na wàlliw yoo xamante ne bii dugal nañ leen foofu ci matt moo xam ne nañ ko liggéeyee boo ko tabaxee ba mu carré rek wala muron mhm. nga def ci matt taal ko boo ci dugalee nit noonu rek lañ ko mën a tuddee ak tuur mm. def nañ loolu euh, dugal ko ca biir te taxul mu dem te loolu boo ko defee wàllu yi ñu ko def yëpp faatu nañu li koy firndeel rek am na histoire bind na ne barab boobee am na lenn ci wàllu yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkki côte yi foofee ca barab boobe fa la ko euh, defe woon ci sawara mhm. ba fa la faatoo kon loolu tam da gis ne boo demee tamit ci euh, dëkk boobu ma la nga may laaj mooy Lambaréné boobu mhm. euh, def nañ ko fa ci pax dugal ko fa ak sawara maanaam maasale ko mhm. ca taxul itam mu faatu kon xañ na loolu moom day nekk nit koo xamante ni bii bu doon ni ñi bi wàllu mi ngi woon ci moom itam sunu borom joxaat na ko leneen loo xam ne ci wilaaya mhm. xaat na ko leneen ci daraja loo xamante ni bii euh, ab xiif euh, du feeñ ci buy wax ci biir ay këyit buy bind ci ay këyitam mhm. xiif bi moom du ca feeñ gis nga ne aw ñam moom bari lii mhm. taw bi nga xamante ne bii moom lay dund da ngay gis ne du jàmbat lu bari métit wi tamit du ci feeñ ba nga xamante ne bii da jàpp ne ci jaarul ci ay tiis jaarul ci ay naqar jaar jaarul jaarul ci dara dangay gis ne loolu day day day day xam. jàmbat daal du feeñ ci ay mbindam. déedéet déedéet ak ak métit yi mhm. déedéet ndax boo xoolee xamdan ak xamitu ak euh, sukuri ak sukuri lay tàmbalee ay mbiram. day sant rek. waaw raditu mooy gërëm naa mm-hmm. raditu anil mawla taala lati rabba mm-hmm. uaadi wa aghnani fa akrim bihi rabba nga xamante ne bii fu mu toll mi ngi sant ak gërëm mm-hmm. yàlla sunu boroom mi nga xamante ne bii moom moo ko boole ak ñii ngir lan mooy résultat bi nga xamante ne bii moom la gis ci dem ji. Mhm. résultat bi la gis ba nga xamante ne bii day daal bi wuute nag ak man mi nga xam ne ku ma def ma def la. Mhm. ku ma ëppil la ko comme ni ko gaañu yomb waxe waxee moom nag jar faarloo na am faar. Mhm. ak li nga xam ne moom la ko sunu borom warlul ci dem ji. kon kon kon mënees naa njortu ne looloo ko kattanal ba yëgutoon sax coono yaak métit ya aha xam nga yow soxla si su fekkee da ngaa bàyyi sa appartement bu sedd bu climatisé am frigo am fourni mhm. am ñam yu bare bare am mbàjj ci biir am mboolem matuwaay yi nga soxla mhm. yaakaar naa ne boo jaaran ci benn dëkku kaw rek comme ni ñu ko yomboo waxee ñu mhm. teg la ci benn néeg bu wéet boo xamante ne bii matériel dara amu fa wax dëgg yàlla sa xel moom ci sa kër rek lay nekk lu ñu wax itam wala koo àndal lu mu mën di wax itam donc naa dina jeex de kon li nga jàkkaar lool muy sëkkër nga mm-hmm. xam ne bu bu bu noppi fii amee mm-hmm. nga dem ja loola nga jàkkaar lool dina tax euh, wenn naqar wala benn mer mm-hmm. du la du la dal lu may da ngay sant yàlla ndax yàlla moo noon la defal nii ma defal la nii defal lii soo defee nii te newoo is ma defal la lii moo tax mu ne laa sa sakwa fa kun mutajallidan xatta takun na naasu an laka mun amu soxla si daal foofu nga ne muy réew mi FM daal. Mhm. na nga fi nekk koo xam ne saa boo xëysee mhm. solu ba jekk. Mhm. muuru ba ni jigéen war a mel. nga def sa liggéey te jàmbatoo ne na nit yi sax man nañoo dem ba yaakaar ne yow da nga bari ay xéewal yoo xam ni. yow yi nga xam ni moom lañ lay fay dañu yaakaar ne. yow ku bari jeexaloo dara jeexaloo dara moo tax mu ne bul jàmbat bul bari jàmbat. na noppi mooy na solu. toog jàpp sa njàmbur mm. def li nga war a def ba nit ñi jortu ne yow da ngaa bari ay xéwal mm. moo tax nag moom noonu rek nga déggee mu di ko waxee képp koo xamante ne bii eh, jaar na fa ci lii nga xamante ne bii moom moom mooy exil bi mm-hmm. luñ ko fa def itam mm-hmm. lu métti métti ci xasida gam koy eh, nettalee mm-hmm. mooy ak cant moom lay ubbee wax joojee nga xamante ni bii moom lay wax ngir xam ne suñu borom lay diyaale ndax sax xasida yi mhm. léeg-léeg mu ne xasida yi samay bind la samay makaasib la waaye léeg-léeg nag mu ne samay diyaale la mhm. kon ni koo xam ne nii day toll étape bopp mhm. day bi ñu ci nekk dana fa génn di diyaale ak yàlla suñu borom lii mënees na ko jàppee benn ci yóbbal yi murit yi wala jullit ñëpp sax war a euh, am euh, ci màggal gi bu nu mhm. demee bu nuy dikk indaale ko xam ne nattu lu mu diis diis diis xéewala nga ca kanam loola la mhm. borom Tuubaa jàngale ci ci màggal gi euh, dem gi ak la ca aju yëpp euh, na mu méttee euh, ñibbisi moom leeroon na ko ni dana ko def te xamoon na ni it ay xéewal ñoo ca topp foofa la nuy mhm. awee ñëw ci keroog ba Cheikh Ahmad Bamba di ñibbisi gannaaw juróom-ñaari at yu nu ko génnee réew mi loolu mën a wax ci bis boobee waa bis booba soo ko tëkkalee ak bis ba mu jëkk a gisante ak ñoom julli gëm jëkk a julli bi mu jotaay ak ñoom quarante cinq minutes la hmm. kon dafa mel ni kon tiitul euh, ragalut waaye tamit mu ngi bàyyi xel yàlla boroomam tabaraka wa taala mi ko mi ko mi ko bind hmm. bi ci topp mooy euh, li gën a siiw mooy huit moom fekk na gaal gi euh, coste na ci pooru Dakar hmm. ba mboolem chef coutume yi nekk ci euh, Dakar yëpp mboolem chef yi nekk ci Dakar yëpp ak euh, mboolem même sëriñ Ndakaaru hmm. ñëpp ak jaraaf yëpp ak ndey réew yëpp teew nañu keroog ci Ndakaaru ak lenn ci jullit yi nga xamante ne bii ci biir réew mi lañ dëkk hmm. te sunu boroom dogal ñu euh, seen tiris seen àggan ci ba mën a dem fii nga xamante ne bii moom mooy Ndakaaru waaye tam bokk ci collectivité lébu bi nga xamante ne bii yàlla dogal na. Mhm. defoon nañu benn action ci bi sëñ bi di dem. njaalee mhm. Ndakaaru waaw tam taxoon na may na leen information wu. Mhm. bi sëñ bi ñëwee jot nañ ci xibaar bi waaye daal li tàmbalee huit heures ci suba. ba ba onze heures nangam. daal gi gaare na ko mel ni sëñ bi dafa nekk ci wàccaay. mel ni dañ ko ne fii ñu toll nii yow kese yaa fi fii sa bopp te booba yor na ay gaal yoo xamante ni bii lim ba sakku na ndax li muy tasaaraat tasaaroo hmm. fi ñu toll nii lu tolloo fukki gaal ak juróom-ñett ñu ngi fi hmm. yoo xam ni benn bu ci nekk dafa def ay euh, def def na pois boo xam ni lu gàtt gàtt dana mat euh, huit ba dix kilos hmm. ñu gis ne huit heures kon ba onze heures demi sëñ bi waxul ak kenn wala boog ñi ciy biti kenn xamul lu ñëw na waaye ñëpp ñu ngi réceptionné euh, salle d'accueil bi mu toog ba yàgg benn nit moo ñëw ne ana ku tudd Sidi Maxtaar borom gaawaan te eh, Cheikh di woo borom gaawaan mii ñu mm-hmm. dal di yéeg ci échelle bi mm-hmm. diir bu yàgg itam boobu dana mat waxtu ndax wax nañ ne midi vingt cinq la génn ci gaal gi taxaw taxaw ci jàkkaarloo ak ñëpp hmm. maam Seex Anta mooma nag nekk na ak moom ci gaal bi waxtu ak trente minutes yoo xamante ne bii ñoom ñaar rek ñoo doon wax ñoom ñaar rek ñoo doon jëflante amul interprète amul hmm. kenn ku leen fekk ci amul kenn ku leen def dara la sëñ dina génn ci sal bi hmm. ndax xañ na euh, sant yàlla ñu dog woon échelle bi mu daal di jaar ci échelle bi nag wàcc saafonte nag ak waa réew mi mm-hmm. saafonte yi tamit ak jullit yi mm-hmm. waaye tamit saafonte nag ak bokkam yi ndax booba ci yoon wi am na ci ñoo xamante ne bii àndan nañu ak borom gaawaan mm-hmm. eh, dem eh, teertu boobee nga xamante ne bii moom moo teertu moom lañ ko teertuwaat nga xamante ne bii xam ne dem naa dikk naa taalifuma te xat damut li ma doon wuti am naa ko ci xat damm nañ leen nañ ngeen ma sant leen looloo waral màggal gi waaw lu waral ñu waral lan moo waral ñu delloo si kaw gannaaw ba ñu ko yóbboo juróom-ñaari at waaw bi nga xamante ne bi ñoom nag euh, nasaraan bi ci seen xalaatu bopp mooy ni euh, nga xamante ne bi maanaam ni la nit bëgg wàññee doomu aadama euh, def ak moom sept ans ba yaakaar ne idéologie bi nga xamante ne bii moom amee wala tolluwaay bi nga xamante ne bii moom moo moom la amee woon wala tension bi nga xam ne moo nekkoon diggante wàcc na wàcc na yóbbu nañ ko war nañ seen doole war nañ non coloniser dëkk jéem nañu ko sànq sottiwut waa jéem nañu sottiwul kon léegi nan leen ko indiwaat te dem bi ko bàyyi xel biñ ko indee bi ñu jàngatee bi mu wàccee ndar ak li mu def sannoo li def sànnoo si toog lu tolloo quarante cinq jours moom itam demaatut këram ba pare tàmbaliwaat di amaat ñu mu seexal te si bi mu demee am nañu jaar si yoon wi dolli ci si yoon wi ci ci loxoy maam Cerno lañ jaar mm-hmm. ba tëpp wàccee ba ñëw sànnoo si ba def lu tollook fanweeri fan wala ñeent fukki fan ak euh, fukki fan ñeent fanweeri fan ak juróom ñeent mu def ko ci diggante Ndar ak sànnoo si ba foofa am na ñoo xam ne fi lañ duggee ci yoonu murit hmm. kon loolu dangay gis ne kon dafa mel ni lañ doon bañ génn euh, gi euh, daanaka yàqu ci lu yàqu ci lu bari hmm. tey gis ne kon dinañu amaat beneen xalaat amaat beneen tolluwaay boo xamante ne bii moom mooy fii kat leen doon bañ ci moom mooy mu yokk hmm. ndax danoon sëf leen ma jóor leen ma danaa ko waaye tam suñu borom a namm ci yoon wi ma yokkoo ci sama darge yokku ci sama mbooloo moo ci nam itam ma doon ab rambuwaakoon waaye tam moo ci nam itam ma sax di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. kon da nga ne kon am nañu programme seen diggante ak sëñ bi mhm. am na ñu tërale woon noo xamante ne bii nekkut ndax moom bañu ñu woon ci moom dara lu may rek mu woote te ñoom mhm. booba dañoo bëggan am lu ñu woote ci biir dëkk bi mooy not nit ñi kaw tënk leen ci seen bopp tënk leen ci seen civilisation bopp mhm. tënk leen itam ci seen laaj ak bopp ñu jox leen wala seen ndigalu bopp ñu santaane ñu jëf waaye gis nañ ne am na keneen ki ñëw ko ni mu gaawe ci woote ñu wuy si ko noonu la gaawe ci santaane ñu jëf mhm. noonu la gaawee tamit ci maanaam tere ñu bàyyi te gis nañ ni li muy santaane ak li muy tere ak ñoom li muy santaane ak li muy tere tere diamétralement opposé dafa waroo fokk mhm. danañu mën a jote ak moom mhm. loolu nag moo tax euh, bi mu ñëwee ci dëkk bi ba def ci ab biir rek ba ngan ga jéggi na day digga mag rakkam jii di Seex Sidi mhm. euh, yoon wi mu def ku yàkkamti woon nitu kese ku bàyyi ak njaboot foog bàyyi nga doom joj keroog dafa gën jamono tegoo ko bët war a ci sept ans ak sept mois tegoo ko bët maanaam nga ñëw maanaam bu laajoo foofu gisoo ko soxna yi nga fi bàyyi woon ci nit kese rek laa lay wax. njaboot mhm. euh, bi. Mhm. sa entourage sa secrétaire yëpp gisoo léegi. Mhm. ngay gis ci dëkk bi gane jaar ci dëkk bi nuyoo comme ni nga xam ne boo fi nekk ni nga daan def. jaar ci barab di siyaare jaar ci biir di ko laaj dem ci dëkk woote woote fa cérémonie fekk la fa nga nuyoonteeg diw laajte keneen nee la ma nga dëkkam nga jaar dëkkam. neel diw na dem toog dëkkam xaar ma mu ñëw neel diw ak diw ak diw nañ ma xaar dëkk sàngam kooku suñu wëllëre la ba li nga xamante ne bii ni la am lu ma quarante cinq quelques jours doo ko hmm. dellusiwaat ci këram bii di Daaru Salaam nga xam ne moom la jëkk xam ci sancal boppam hmm. loolu tamit da nga ciy gise ne kon suñ bi daal am na jom ak fit hmm. ak ngor boo xamante bii dara mënu ko yëngal te dara itam du ko yëngal ndax ku nekk ak ñoom ànd ak ñoom dem ñëw looy def da nga koy defee sa xel. Mhm. da nga koy def sa test ak sa tey. Mhm. kon loolu daal liñ ci mën a gis mooy Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daal euh, li nga xam ne moom la ko suñu borom santoon pour mu defal ko ko. nation mhm. euh, bi daal def na ko ci defin bopp. li lay won na la def na ko. mooy mu ci su ko kenn koo xamante ne bii liggéey na comme ni xamante ne bii Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéey rawatina ci. wàllu yoon wi nga xam ne ni moom mooy yoonu liggéey bi ko mhm. santale leen ma borom bi bi mu waxoon nag atum 1928 la ñu ko tàmbali benn at ginnaaw bi mu génnee àdduna ñu tàmbali amal màggalu Tuubaa gi äh, kana ko äh, sos kana tàmbali màggal gi ak äh, lana ko sooke xëy na lana waral ñu ñu di ko def waaw moo ko tàmbali boppam moo ci joxel boppam ndigal mhm. màggal na ko ñeenti at fii ci njaareem laata muy ñëw fii ci Touba. Hmm. ci màggal goo xamante ne bii moo ko jiiteel boppam di ko def ba pare sant ane ko. moom Cheikh Ahmad Bamba. moom Cheikh Ahmad Bamba moo jëkk am benn bëy. Hmm. daal di koy jox ay ñi ci këram. joxate mu jox leen bëy boobu ñu dem ci dëkk séréer ya essence ak séréer yooyu bëy woowu ndax bëyoo ba ko séréer gisee gis nañ ne bëy wii. forme bii mu am bëy wu mën a njaboot la bëy wu mën a bari soow la mhm. jox ko ca am xar mu góor mu mu defar xar moomale euh, def ko ay saam tasaare ko ci biir kër gi ne dama bëgg bu bis bi ñëwatee ñu sant la ci sama borom mhm. ndax xéewal bi nga xamante ne bii ah, defal na ma ko ci mhm. ndax xéewal bi am na tàmbali waaye amul su yem léeg-léeg soo ko gis mun a لكلبة سرمدا وجعل المسير يسعى جوف الفرع للورى مثل المحارين yow suñ borom mi nga xam ne yaay wax ne na am mu am na nga jël dem ji nga xam ne moom laa demaroon sama borom ci géej gi nga def ko muy fajuk aajo mbooleem yow yàlla li nga bind lépp na ci seen fajuk aajo mën a tàbbi ci biir liggéey bii nga xamante ne bii moom laa liggéey leen sama borom ci biir géej hmm. kon nga ne defal na ko boppam santaane na ko waaye bàyyi na ko ci ak ak Mouhamadou Al Karim mu doxal ko ci ak biir foofee nag ci njaareem waaw foofe ci njaareem fa lañ ko doon defee ci wéy di liggéey jumaa ji ak barab ba nga xamante ne bii nag egg nañ ci jamono bi ñu ko bàyyi ko rek rek édition ba ci jëkk ñëw rek di mille neuf cent quarante cinq quarante six suñu fa fàllu nag daal di koy woote nag fii ci Ndakaar nag sant googee mu doon wax mhm. te defaroon ko boppam te santoon nu ko mhm. nan leen ko indi fii nga xamante ni bii moom moom mooy eh, fii nga xamante ni bii moom mooy Touba mhm. nga ni bii fi la tëdd waaye Touba gi nga xam ne nii mooy dëkk bi nga xam ne moo ko gënal ci mboolem dëkk yi moom bii nga xam ne moom mooy Touba nga xam ne sunu boroom tere woon na ko tax ne ko comme da laa neex te jamono jii amoo dara lu la neex loo xam ne war nga saa ne kon nag nañ ko ko indil fii ci Touba. loolee hmm. moo waral nit ñi dem Touba. waaw moom moo waral ñu woote. Hmm. tey nag gis nañu màggal gi moom euh, ni ñu koy waxee amul tànki gannaaw tànki kanam la am at mu jot mbooloo mi gën a bari at mu jot euh, xew mi gën a rëy euh, naka la nag ña ñëw tuubaa war a màggalee ndax dinañu faral di dégg ne am na ñuy dem Touba ba dikk daanaka duñu fa def lenn diine duñu fa def lenn cant xëy na mbiri àdduna la ñu fay nekkee ba bi nuy ñibbisee loola waxtaan wi bëgg nañu yee ci ñu bari ndax Cheikh cheikh bi santale leen ma borom bi la wax euh, cant googa naka nga jàpp ne la ko murit ak jullit sax ndax du tu murit yi rek kay dem tubaa naka la ñu ko war a amalee ngir defal Cheikh Ahmadou Bamba la mu bëgg ba tax ñu jóge fu ne jëm tubaa waaw sant moom xam nga moom ci xol lañ koy laltaay. Mhm. maanaam ab xol moom mooy sant. Mhm. xol bi nag mooy ommat mbooleem. juróom ñaari jubluwaay yi nga xamante ne bi ñoo aju ci xol bi. Mhm. Euh, làmmiñ nag da caa doon loo xam ne moom li nga xam ne mooy voix bii génn ci làmmiñ lay ci làmmiñ lay jóge euh, sant nag maanaam yàlla lañ koy def mm-hmm. yàlla lañ koy def ñenn ñi nag dañuy jàpp ne sant boobu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba moom la ñuy sant mm-hmm. déedéet sëñ bi moom mooy sant yàlla ñun ñu sant ñun ñu sant sëñ bi loolu lu mën a nekk mm-hmm. am na nag itam loo xamante ni bii moom la diggee ci foo xamante ne bii sant la nga ko boroomam tabaraka wa taala ak itam naka la ñuy sant nag bu dee ci ay cër la cër yi dañ koo sant li ko yàlla sant lépp ci cër yooyu mu def ko li ko yàlla tere ci cër yooyu na bàyyi yëpp ba pare jël aw làmbañam di ci yëkkati ay baati cant waaye tamit jël alalam di ko dugal ci loo xamante ne bii dafa jëm ci sant suñu borom ci jaamu te faste ak jaamu yàlla sax suñu borom fay ko ci dara mm-hmm. waaye tam moytu lépp loo xam ne day àdduna ak bakkan ndax ci biir cant gi mm-hmm. dañ lay moytandikoo nga jëfandikoo lu yellut ak luy lewut mm-hmm. booy booy jëfandikoo da ngay jëfandikoo loo xam ne dafa dagan ba pare doon loo xamante ni bii lu la leew la maanaam fii ñëw ak fan ko fekk lépp liñ leen sant rek mooy que ne sant moom alal ju leew moom moo ko mën a def mhm. waaye tamit bu alal ju leewoo tamit nga def ko ci lu yell mooy bul jël sa alal bi nga xam ne ñax nga ko ba mu leew la nga dem di ci jënd am ñollu mhm. di ci di ci sant waa nga jënd ci yeneen xeetu Sénégal di ko boole ci biir sant bi mhm. kon bu boobaa foofee dafa mel ni Euh, li ñu woote xamu ko mhm. waaye moom itam li muy def euh, moom xamu ko mhm. kon yàlla dafa am noo xamante ni bii ni la ñu koy sante mhm. te sant bi ñuy sant yàlla daf koy boole mbooleem li dagan bu ko defee nag wàllu bernde dina tax nit yaakaar ne dëkkëb lekk ak naan rek lañ jëm dëkkëb solu ak summeeku képp lañ jëm tey loolu bari lool de waaw loolu sax moom booy seet moom moom moo ëpp moo ëpp ci ñuy ñëw ñi ñi moo ëpp ci ñuy ñëw waaye ñi nga xamante ne bii nag ñoom ñoo yore màggal bi boo ko xoolee ay commission yu baree bare la ay commission culturelle yu baree baree bare la ñooñu nag euh, fu ñu toll ñu ngi wone ana lan mooy màggal ki nga xamante ne bii moom ngay fekk si li ko war su ko defee rek yow mi nga xam ne yow lañ fekk si na nga àtt na def li la war mhm. boo dee jigéen sax na nga fexey ba fer ijji comme da ngaa fas yéene di màggali Touba. Mhm. nga doon safoon ñaari ay nga di ko baamtu. Mhm. ci ngir di ko santle Serigne Touba boroomam. Mhm. dafa xëy ba fër yi mën a wax ci alxuraan ñaari aaya walla nga mën a wax saar woo xam ne dafa war a toll ci ñaari aaya. nga di ko jàng bu boobaa alxuraan rek ngay jàng lu mën nga ko. moom moom boo euh, tee nag di sant. su ko defee ki nga fekk ci moom nga xam ne togg jox la ak jox la nga sangu. moo doonoon war teefam ñaari sax yow yaay indaale say yére indaale sax ak critique soo xamante ne bii ci wàllu ñam lay bokk lay bokk mm-hmm. waaye nag bañ faa jëfandikoo daal lu xaraam mm-hmm. ak bañ a foy itam ci jaxaay yi rawatina nga foo xamante ne bii dañ koy baalee nga ñëw bu sa bunt ba di tooñ mm-hmm. xam nga ne kooku moom la mu nekk lu doy waar la te bii nit war na koo màggal mboolem tiis suñu amoon sans borom dàq ko mhm. sans borom ubbil ko xéewal mu jàppandee ci moom comme ni mu jàppandee ci sëñ bi mhm. waaw ndax sëñ bi daanaka waxu koon ne man bëgguma alal mhm. waaye booba dafa am ñu mu jàmmaar loolu ñoo xam ne dañoo dëgg alal mu bàyyee leen kon tey noonu war na noo fexe ba bu ñuy màggal def wàccaay ak jéem a jàng sëñ bi naka la woon naka la ñuy màggale te jàngal xuraan comme ci sa làmmeñ maanaam suñu borom moo bëgg nit yi di ko fàttaliku boo yoree période alxuraan wala ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ci wala ci leneen kon nag posturu nii faskum ci alxuraan waxam day daal di dellu ci waat sant leen na man yàlla dee mhm. leen ma fàttaliku ma di leen sant di leen tukki di leen fàttaliku mhm. kon tey loola am na bénéfice bu mag a mag a mag a mag mhm. dañu jàpp ne tamit ñi fi ne ak ñi ñuy fekk si lekk ak naan mooy lu gën a tuuti ci bernde yi nga xam ne ni moom lañ fekk ak nit ki mhm. waaye kii ñëw itam na xam ne lekk bu neex ak naan bu neex du utu ko mhm. dafaa war a gañee place bi mu jëm mhm. ak bi mu jëm dañ koy dàq yaakaar ne bis yàlla ci jéggalee li sa dàq suñu boroom la bi su daje ak suñu boroom la bi su connexion ci suñu boroom la waaye nag ñu bañ koo def nag benn barrage dañ koo def nag benn kiiraay boo xamante ne bii dañuy dox ca safaan ba mhm. di waaxu di baagante jéem boo xam ne nii boo fa làqutoo mën a loo xamante ne bii néew kenn du ko tamit euh, mu nekk lu jar na ñooñu léegi nga boobu nag la moo màgg màggaay boo xamante ne bii euh, ci pays yi ci suuf ak planète yi ci suuf yi ci kaw yëpp danañu yëg bis boobu nga xamante ne bii moom mooy bisu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi nga xamante ni bii moom la moom la wooteel boppam fu waaye ne ak fu dara nekk rek muy muy muy aljanaas mun ko malakoos arasa fu ne dinañ yëg ci fan ak juróom-ñett yii Sëriñ Tuubaa liggéey leen boroomam ba mu fay ko mm-hmm. ñëw na wala boog suba lay ñëw wala boog tey jii ni nit ñi booba bindoo nit ñi dañ xam ne bis yi nga xamante ni bi moom la dem liggéey li boromam mm-hmm. euh, dellusiwaat na kon loolu Mhm, am na solo fi ñuy jeexalee xëy na sëñ Moustapha Ndiaye Thiargane mooy li xew ci ñaari màggal yi ñu nekk bi tey ak bi ko bi amoon daaw ndax dafa yemoo ak mbas mu metti am ñu bari mhm. yaakaaroon ni euh, yëf yi xëy na dañu koy dàq waaye ñu gis euh, taxawaay bu euh, sëriñ taxa Mbacké moom mi nga xam ne mooy xalif général de Mourides tey am mu mel ni kon sëriñ bi moom dégg na la maamam bu tedd ba santaane woon te ñor na ko lool njàngat moo def ci taxawaayu sëriñ Muntaxa ak màggal gi bi mu toogee ci jal bi ba léegi waaw ci màggalu démb ak bopp tey comme ni ma moo dëppoo bi mm-hmm. euh, màggalu démb ak bopp dafa fekk euh, taxaw ci lépp loo xamante ne bi activité la activité bu religieux ak activité bu sociale ñoo ci bokk yem mm-hmm. adduna bi bépp taxaw na doxatuñu jëm fenn ngir maanaam euh, am na mbas moo xamante ne bii dafa ñëw waaye nag euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha ne comme yàlla dogal na muy Sëñ Tuubaa nag ci kaw suuf ah kon nag moom li muy def rek mooy nan leen jël sunuy matuwaay ndax tawat am na nan leen jël sunuy matuwaay te xam ne sunu boroom moo moo woote suñu borom moo soxla suñu borom itam moo ñu sant suñu borom itam moo ñu sant ngir ñu war ngir ngir ñu war a maanaam màggal màggal ak suñu Tuubaa gi waaye nañ leen ko teg ci jël suñuy nafwaay ngir xam ne maanaam tawat am na waaye tamit jëfandikoo ndigal ak bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa ci bisam bii su ko defee bu mu defee bisam bi nan ko santaay danañu ci daje ak la nga xamante ne bii moom la ca diggee ak la nga xam ne moom la ci suñu borom tabaraka wa taala diggee loolu moom moo tax ñu santaane màggal gi daaw def ko te xañ na bu fekkee wàññi dara ci tawat ji tamit jortu nañ ne yokkul dara ci tawat ji ndax nan ko def ci jël suñuy matuwaay man ci gémmiñam laa ko jëkk a dégg mm-hmm. nan leen màggal te li mu laaj ñu def ko mhm. wax nañ na tawat ji dafa soxla woon muy set comme ni ko lislaam bëggee mhm. dafa soxla ñuy euh, raxasu tey takk ay kiiraay ci sunuy gémmañ ak sunuy bakkan mhm. yoo xamante ne bii day jaar suñ diggante ak euh, tawat si loola tam yaakaar naa ne ni mu ko santaane noonu lañ ko defee te itam noonu nag itam lañ ko dajee ak loo xamante ne bii lu xawe njortu la kon baatu ndigal mhm. te sëñ bi jëfandikoo ba def lii nga xamante ne bii moom mooy màggal bi mhm. waaye tamit ndigal itam la jëfe ci ñun ba def màggal gi daaw eh, defaat ko ren mhm. ñuy ñaan yàlla yi tamit xamumu lum ci sax waaye daal ñu xam ne yàlla moom mooy ki nga xamante ne bii moom la ñu war a ragal doog a ragal euh, feebar mhm. yàlla itam lañu war a topp ay ndigalam di julli ak a ñaan xam ne yàlla mooy rey waaye tawat du rey mhm. ay sabab la nag ci liy rey waaye suñ ko moytoo ba pare boole ko ak di def digal yàlla mhm. yàlla mën nañ saa dimbali gisin woowu lan gis ndax dafa def sama brenam ji mooy kasbul xalaal mooy ne nit ñi di fàggu lu dagan conférence bi nga xamante ne bii moo am yëpp lay ndigal la rek mooy que ne la Sëñ Tuubaa doon dundee muy fàggu lu ba pare bu daganee nag ba nga tiiku ci sa loxo nga jëfandikoo nag itam alal joojee ci loo xamante ne bii dafa dagan hmm. kon màggal gi euh, goog daaw ak goog ñoo bokk benn form hmm. ñoo bokk nuñ ko wootee ñoo bokk tam nañ ko doxalee comme tànk suñ bi nag amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am hmm. kon matuwaay yi ñu daaw rek dañ koy yokk mhm. jël ko rek yokk ne bépp xam ne respecté nañu mesure barrières yi muy mhm. di jël euh, sel ak a takk masque waaye tamit ñu màggal ko ci anam gi nga xamante ne bii moom la ko sëñ bi wootee mhm. ak anam gi nga xamante ne bii moom la sëñ bi bëggee ñu màggal ci loolu moom bés naa ñëpp xam nañ ne sëñ bi am na lu mu bëggan te daana santaane itam nit yi di ca nekk. Mhm. ci waxtaay ak surne xaside boobu nga xam ne junj nga ma ko léegi ci tàmbali gi. Mhm. li ma ci mën a wax rek mooy waxi Sëriñ Tuubaa ji nga xamante ne bii moom waxam na ko bu yàgg. Mhm. man zanna gayrallaahi yóbbu ni aw yëdduru fasaaka fi daare ni suu kaddin wa dur suñ passé rek Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne nañ wax jullit yi ne leen Sëriñ Tuubaa mi yaakaar nee na. koo xamante ne bii jortu nga ne njëriñ ak ndimbal nekk na ci kenn sudu suñu boroom tabaraka wa taala foofee naa sonn te itam foofee waru la war boppam la na ngeen jël bayit woowu ngeen di ko baamtu di ko jàng euh, jant bu nekk lu yiis yiis ñetti yoon mm-hmm. kon tam gis nga delloowaat na bu sa booy booy ba macha allah soxna. ñu mhm. gis ni itam bala màggal gi safar gi dundal nañu ko lool ci santaaneeg Serigne Mountakha Mbacké loola euh, noo ko gisee ak ban yëg-yëg nga ci am. waaw xam nga yéen tubaab yi moom da ngeen a fonk lool introduction. ñu di ko mhm. wax ñu tarjumaan. Mhm. Euh, dara boo ciy jub. war nga jiital benn discours wala nga jiital benn yëf yoo xam ne nii. la ëpp ca la nekk ca euh, la nga war a def day nekk ci introduction bi loolu tamit moom mooy li nga xamante ni bii mooy ayaamu safar parce que euh, safar moom euh, xam yi su ko woon fu ñu ko doon jëfandikoo ci lislaam lu dul nii ci Sëriñ Tuubaa kon am na bis yoo xam ne nii fukki bis ak juróom-ñaar yoo xam ne day waajal benn bis muy fukkeel ba ak juróom-ñett ci fu nekk ci Sénégal itam da nga fa gis ay ñam yu dagan ñu di ko fa wesaare mhm. maanaam ñam ya nga fay gis rek ñu di ko fa wesaare yooyu ñam mooy ñam yi nga xam ne moom la lislaam bëgg mhm. euh, la lislaam bëgg tam moom doo gis mukk ñu di ko fa tasaare mhm. moo xam ñuy joxe ci oto la moo xam ñuy joxe ci kër yi moo xam ñuy joxe ci feneen ñaareel ba yi tamit sëñ bi biñ ko ko jëkkee defal boppam euh, gaawaan euh, lu nekk def nañ ko fa mu am na fa xeeti ñam yooyu sax man ba tey jii dajeeguma ak moom ci kaw suuf loolu mm-hmm. loolu ak xeeti jur yoo xamante ne bii lewataloon nañ ko fa ay baa ak yoo xamante ne bii maa moom moom moom moom moom ñi ko mas a gis bariwul mm-hmm. ay giléem ak nag ak xar yoo xamante ne bii ci siñ bi moom loolu ci kanam lañ ko defee waaye tamit kon dafa mel ni joxe ni ci ndigal te bàyyi na nit ñi ñu wéyal sa kon daal wax dëgg yàlla nit ñi daal li ñu war a def mooy delloo sël borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ñu indil lii mhm. ba pare ànd ak suñ tubaa santle ko boromam buñ paree nag kenn ku ne delluwaat sa sab tarixa mhm. ak delluwaat fa sab tarixa ak ci sab sëriñ mhm. lam la nga di ko def lam la tere nga di ko bàyyi te bu bis bi ñëwee nga def ngir yàlla ak jëmmi lislaam sant la sëriñ tubaa suñu borom tabaraka wa mi nga xamante ni bii moonu bokk dund ñun ñëpp jërëjëf sëriñ Moustapha Ndiaye Thiargane ñu amoon mbégte lool dalal ci euh, waxtaan wi démb ak tey dellusiwaat ci màggal gi xëy na lanu ca mënoon a yokk bari na ndax taxawaayu maam Cheikh Ibrahima Fall sax bëggoon naa ñu ñu ñu ñu sof ko ci waaye xam naa ne fi mu ne yaa ngi ci màggal gi te gan yaa ngi la war ca Touba ga nga ne ñu bàyyi la rek euh, nga tàggoo ak auditeurs yi euh, ba beneen yoon incha allah ñu dikkaat ci yow nu murit ak Cheikh Ahmadou Bamba ndax moom loo ca wax wax it dana am lu des. li ca li ca def lu bëri kon ñu ngi lay jërëjëfal baax yow ak waa réew mi yëpp soxna si tam jërëjëf jërëjëf di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall moom pas-pas rek eh, nit ku pas waaw nit ku pas-pas la mhm. bis bi mhm. ngi eh, ñaanal képp koo xam ne nii dugal nga sa loxo ci sant jii suñ Tuubaa woote ak noo ko ci dugalee yàlla na sa borom sakkanal loolee yaatal ko ni mbirum Sëriñ Tuubaa sakkane yaatoo noonee barkeele ni mm-hmm. amiin borom tabaaraka wa mm-hmm. yow mii tamit ñun ñoo ngi lay ñaanal ci ñaanal mbooleem ñi nga bokk liggéey bi amiin jëwriñ bu mag ak rajo bi sa borom yokk suy mbir ndax itam bis bii kët mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla euh, xam naa sa dem na ci ñu bari waaye nag man li ma sant yàlla rek. Mhm. mooy li sax xel deme ci man ngir ñu ànd ci liggéey bii ah, wax dëgg yàlla loola tam sunu fedd na ci bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan nag suñu borom ci liggéey Sëriñ tubaab bi. Mhm. mu defal la ci lu kawe sa njortu. maanaam ba nga jot ci yow ak ak njaboot ak mboolem koo xam ni dafa aju ci yow. amin jërëjëf jërëjëf sëriñ Moustapha Ndiaye Thiargane di conférencier ràññeeku lool macha allah ci yoonu murit ñu lay gërëm bu baax a baax eh, di leen ñaanal màggaluk jàmm lépp luy xéewal itam tukkee ci bés bi yàlla boole ko wesaare eh, ci àddina rawatina ak Sénégal mbokk yi seen émission démb ak tay la woon ci réew mi FM eh, jaawo jàllo moo ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen waxtaan wi mën ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu yendoog jàmm